Hmm. parce que leen xam naa ko. Hmm. parce que loolu mënoo ma ko wax parce que mënoo maa wax ni lii war koo ci yokk ndax balaa mu may dàq dama dàq. ñu ne yoo début ñëw ne Sénégal oo oh, ma pour gis ma pour ñu trouver solution pour mu génn kaso ñibbi këram. ma dem seeti début fekk muy ñibbi sax jotuñu sax wax ma moom. waaw man information boobu laa. mais ma bay leen ay weer ci kubba gi ñu foog ne maag début wax nañu ma géex ma suma toog début toog waaye comme. seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel est-ce que amul woon foofu lu ñu fa doon parce que yow ba dégg ni bi ngay ñëw ci ay eh, fi mu nekk dafa ma nekk ba sonn te boobu Macky sal dem na aéroport pour gunge ko xam nga dafa am protocole on ma laa veille ma dem fekk muy nalaw ñu na ma suba suba ga ma ñëw ñu may nalaw ñu oom ne ma yow rek la président nekk le ma may sangu maris la ayewoon circulation bi romb padduwaa ba bay dugg ba may dugg méridien fekk naa ko juste muy nuyu nit ñi loxo ni bay ma taxaw waaw loolu mais mais bi ma taxee mu duggoo tam directeur cabinet bi ma gisoon laa veille ni ma daal dem ci kii bi président dee ko ni ko El Hadj Diouf a ngi tala loxoom nuyu ma am na lu ma benn phrase benn phrase man ubbi ma sama gémmiñ man yàlla la wax du ko wax sama livre lu tax mënoo dinaa livre ci après lu tax mënoo ko wax dinaa livre boo xam ne mënoo génne sa war génne avant procès après bi parce que pare na mais moo génne woon day mel damay day duru leneen daal. waaw ndax nit da ngay fees mat bi ma fa jógee ma dem ma wax jabaram ni ko diw seete woon mu ne eh war foon dem erreur la da lay ma ne ko ku wax la wala bu jox la ma ragalu ma début di. waaw bu ma yónnee ndaw ni ma. kon benn wax boobu mu la jox. moom rek ma ne benn phrase ci otoom la nekk. waaw benn phrase la prononcé. phrase boobu ma rek maa xam ak jabaram bi nekk ko ci guusam ak chauffeur benn phrase la wax ak man tooguñu ma ak moom wax. Mhm. directeur cabinet ne ko El Hadj Diouf a ngi ne Maître mu tàllal loxo bi mu tàllal loxo bi ak benn phrase man moom yëg naa loolu. loxo bi ñu ñu wàccee. vitre bi mu tàllal loxo bi wax benn phrase. après ma reculer yëg naa ne moom bi ngay yegg si lay départ. léegi nag ñu ne damaa comploté contre contre Habré. Habré mhm. kon léegi dàq na ma. moo tax ma laaj leen la lan laa waroon def defuma ko maa ko de Belgique.

avocats yi nangam convaincre nañu ba léegi bàyyi nañ ko fi. Mhm. fekk ma ne Ousmane Ngom ministre de l'intérieur bi arrêté bi ñu ko Ousmane Ngom yow xanaa doo avocat Abdoulaye Wade xanaa doo avocat. noo mënee bindee arrêté ni dàq nañ génne nañ abré senegal waaye ñu koy yónnee Olusegun Obasanjo Nigéria yow kay mën koo génne réew waaye fa muy dem doo ko tànnal moom da ko bëgg a envoyé donc Olusegun mu nekk chauffeur am wala planton da koy may moom jaam la chauffeur euh, euh, euh, kii la objet la. benn cadeau boo koy may objet la. génne ko Sénégal mais bu ko tànnal fu muy dem président ne ma tu m'as convaincu ñu bëgg ko yóbbu Ñamena benn lundi weekend bi laa taxaw di wax di xataraayu conférence de presse sur conférence de presse ba Nations jot ci Wade ne génn naa ci léegi Nations Unies menacé Abdoulaye Wade ni ko kii bu demee Ñamena dañ koy rey parce que il est condamné à mort déjà par débit bu fekk taxuñu di ko rendi te loolu loi internationale aye na ko képp ku ñu condamné à mort ci réewam kenn amul ko fa parce que mooy demal demal dee moo convaincre président mu dellu ginnaaw kon lépp lu woon def ci moom muy Soudan Khartoum pays en guerre dem naa fa pour waxal ko Addis Abeba dem naa fa pour waxal ko dernier sommet union euh, union wax naan da nga koy dernier sommet France Afrique de Jacques Chirac fauteuil bi Jacques Chirac toogoon bi mu ma ci tok, même pas deux secondes kon ñuy wax naan avant ma génn salle bi ma journaliste yi resté leen ma wax ak yéen ci après keroog dama def ben, après dafa kontaan ba ne ma tu as fait un tabac à Bamako muy sommet sommet ATT mhm. ak ak ak Chirac le dernier de Chirac -hmm. Euh, Bamako ma dem Banjul sommet de l'union africaine de Banjul keroog Kadhafi dama ko yàq ne ba garde corps bi jigéen dama xool xamuñ li may wax ndax bu déggoon français a agressé mais ñi wax nañ ne lii laa ko jaayee lii laa def ba jaaye ko. Hmm. ndax ñaata lañ ma fay mu ne def lii pour jaay ko jaay ko pour lan. Ah. non xam nga seetaane waxul dëgg may yàq na xel ñu bëri yàq seen xel nu may jaaye après pour lan lan laa ci am. ndam li ma yàgg am ci moom. tax ragal ma pour trouver solution mo faut trouver une solution. bu ma trouver une solution. Il faut ak début. ni chambre africaine ñi ñu une solution. du fi Sénégal Il wala trouver une hmm. ñuy wax mu def procès ba biir wala am une solution. Il déedéet man mosuma tardé. ci information mais léegi kii di dem. donc <laughs> donc waa donc ñeme naa. dama lay laaj ne am na procès. yi ñi ah. ñooy complice su abré yëg ko. Mm-hmm. bu dee ñooy complice su abré lañ. chambre Sénégal la Tchad Union africaine ñoo ñoo signé convention bi. et puis lànk di du envoyé fii kenn kuy jóge Tchad am na wala amul. ñu wax mu ne ko delloo xaalisam te moom moo financé li ci ëpp yëpp 4 milliards. pour président président président mhm. police merci beaucoup man uh-huh. merci beaucoup ba gis na ko tey ah kan moo gis tey ku ko yëg ah merci beaucoup tey jëkk ku ñu yërëm man ak moom mmh. ku ci sonn mmh. kan moo war sa morom ku yàlla wan war ni mel ko war ne ren ba déwén te gisoo ko dañ la koo jiiñ